mais gars yi dañu manqué sportivité tuuti bi ma nuyoo Sénégal gépp ba pare li ma wax man la engage et je ne regrette rien ci li ma dinaa def rek rectificatif bu ndaw d'abord ci ay propos Khalifa cent mille jaaj wax waxuma mille cent mille bi dafa bari cent rek laa wax cent téeméer laa wax waxuma cent mille xëy na nag da communiqué parce que politicien danoo xam ne ñuy waxee ak communiquer pour wane ni am na am na ampleur la bari nanu cent laa wax te it j'ai pas dit dañuy dem pour taal ay famille Diaz moi j'ai dit que Barthélemy Diaz na bàyyi sorte de violence yi muy def parce que violence yooyu mën na yóbbee nit ñi musiba fii ay cent mille mbéngeen cent mille paaleen cent mille njaayeen cent mille jóobeen cent mille sàll yooyu am ci réew mi cent mille Touré cent mille John cent mille yooyu ñu am ci réew mais sans Dias rek mënuñu leen accepter ñuy ta jéem a réew mi parce que ñoom suñu tàkkoon du am benn significatif par rapport ak population yi ci Sénégal. la guerre comme à la guerre mënuñu permettre un bar toog di wax lu ko neex nit ñi di manquer moom moo violent di manquer Khalifa Sall il a été ministre de la République moom dafa fàtte leen ko jàngaloon ci parti socialiste li ko Abdou Diouf jàngaloon ak Ousmane Tanor Dieng xanaa moom war na xam. lan mooy un chef d'État Khalifa Sall a été ministre la République moom moo waroon a jëkk a arrêté arrêté nii mu ma tontoo tey moom Barth la war a jëkk tontu mais je pense que dafa fàtte les vertus de la République moom Khalifa Sall xam naa ko bu baax nag sama rakk la mais xam naa ko bu baax bu nu defee ni aura bi nu am ci biir Ndakaaru moom la ñu am ci Sénégal moom amul boobu aura ci pays bi il faut qu'il qu'il arrête un Soham Wardini j'ai été déçu par que propos parce que moom il elle a été traumatisée elle a été violentée elle a été trahie donc bu mu jéem a wut ay allier yoo xam ne du ñu allié moom di wax moom elle a été violentée Askan Wi donc elle n'a rien dire moom itam man li may wax ragaluma ci dara parce que sénégalais la am fi famille une famille diiñ nag ñu xam ma bu baax ci côté yëpp. mais ñoom Barthélemy tamit ay Sénégalais lañu. non non mais danoo bariwul danoo bariwul ñoom ñoo violent ñoom ñooy prôné violence ba benn association religieuse taxaw di bëgg a ay pacte de pacte de non violence. xanaa Barth nga ñeme mais taxal ba nu paree ci Barth Ousmane Sonko wax naa ci moom Ousmane Sonko moo tane Barth malgré prôné na violence ku la màtt nga màtt ko ku la yi nga kii ko mais mais dañu dañu dañu yàpp nit ñi walla lan ba ñoom lu leen neex wax propos yu leen neex wax jëmale ci président Macky Sall di institution jëmale ci procureur Barth lu mu def bërki dem te un commissaire de police de jéppal di ko traité de voleur li tax Khalifa Sall tontuwul woon loolu lu ko gën a violent xam nga Sénégal li ko yàq mooy naafeq di ñoo bari nan bàyyi affaire naafeq réew mi ñun yëpp ko bokk bu nu taal suñu réew mais naa féq parce que Gaston wax na rek ñu bëgg ko man dama waxaguma de damaa xosi rek dama leen a xossi rek ndax ñoom ñoom déjà ñu ngi ni affolé ndax benn xosi te ñu cap am capable di wax lu leen neex di yekk lu leen neex un chef d'État di wax di yekk lu leen neex dafa ne ñoom rek ñoo war a wax ba pare euh, di aspirer pour yor réew mi di aspirer pour yor Ndakaaru mais ñii ku leen mais mais c'est pas possible il faut que ñu tey. il faut que ñu ne man nag ñuy wax naafeq buy wax nekk ci Facebook ak yu kenn xamul di wax ay naafeq man yooyu d'ailleurs du ma sax liir yooyu ça ne même euh, pas du façon yooyu mënuma ébranlé mais violence ci ñoom la fekk baax mais qu'est-ce que j'ai dit nan bàyyi ñu violence mais mais dama non non non ñoom ñoo ni lakk ay nit dama ni li ma wax c'est clair nan bàyyi di jéem a taal réew mi surtout Bart tey jaas yi bariwuñ fii mu bëgg a taal réew mi tey su réew mi tàkkoon su réew mi takkoon su réew mi tàkkoon su jaas yëpp sans jaas yëpp deewee xëy na mille mbéy ngeen mën naa de mille paaleen mille kànde mën na noo dee loolu laa wax waxuma leneen te c'est la réalité danu war a bàyyi di jéem a taal réew mi ñoom kenn amu ci màqaama mais lan la ñoom ku ci ne yaa ngi defi la ngay defi wax naa ko jaas ngeeg euh, Barthélemy ngeeg ay toolam ban ban CV la noom ñoom kenn amu ci benn CV bu baax CV yëpp politicien suñu doom yi leen daq jàng fukki yoon ak juróom ay Xalifa Sall ak Dia ñoom ñëpp samay doom leen daq jàng ëpp leen diplôme fukki yoon ak juróom ñu tey taxaw bëgg noo rey mais il faut qu'il arrête tey tey su te ñoom su Macky Sall meloon ni ñoom tontu leen wala mu frappé fort xamu fu nu jëm kon bay demandé ay. ça doit être condamné moom Khalifa Sall xanaa li ñu ko condamné tax mu bëgg ñu condamné ñëpp. moi li ma wax duma ma ci retirer benn yoon benn jota benn jota nan ñoom nan correct nan teggi violence teg ko fële man tey ci sama bi ji laa jóge maa ngi nii soog di egsi mbër yi nuy jaay violence tey foofa violence zéro moo fa am nit ñi foo kafre senegal loolu la xam ñoom ñoo violent ñoom ñi tax ba nu indi fi charte non violence bëgg ko leen koo signaloo sax far ñoom ñu bañ par parce que ñu ngi xiixaa nag ñu ngi seet ëllëg parce que xam na ni li nu nekk dara du ci dëgg ci xam na ni fa nu jëm duñ fa àgg ñuy commencé di préparer ay activiste ak ay ñu ay mécontent ay frustré di préparer ñooñu mais nit ku yeewu nit ku am bopp nit kuy dégg am am waajur nit ku am kilifa du leen déglu sax seen discours yu ñuy def su leen neexee nag ñu toog ci plateau télé yu leen neex di wax lu leen neex mën nañ ko wax mais kenn leen ci fekk si c'est une minorité peut bu toog di leen fekk si léeg-léeg ñu woote meeting yooyu ñuy woote ak investiture Sénégal ku woote ñu fekk sa président Abdoulaye Wade daan woote un million de personnes ñëw taxaw ban ko waree wàccee dañ looy wax nan xaar élection yi nga nga défendre sa bopp défendre li ngay sa programme par des idées soo ko defee mu jeex mais taxaw bëgg a xiixaan ñi di tiital di tiitalaate di wax ku leen xosi xosi leen ko ku damm seen bëñ damm leen mais mais mais non attends il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on soit sérieux nan respecter réew euh, man du ma invité sénégalais pour mu taal benn nit sax man dama xam luy taal ñoom ñoo ñoom ñooy prôné taal ma ne ñoom suñu tàkkee suñu prôné suñu taalee dëkk bi peut-être cent gaz amu fi mille mbég ngeen yéeg mille paalen yéeg mille ñangeen yéeg yooyu ma wax li tax tudd na ko ñooñu ñëpp suñ leen rayaalee Jean Dias dégg lu muy euh, ñoom ñoom duñ ko sax yëg ñun ñoo koy ñun ñi nga xam ne ay milliers lañu ay millions lañu ñun ñoo ko yëg te dundul àgg foofa parce que ñoom mënuñoo taal dëkk bi mënuñu ko taal il faut qu'il déchante mënuñu taal dëkk bi su leen neexee nag toog di wax ay tàng xool ay ay frustré ay révolté de la nature toog di leen jéem a suivre ay naafeq toog di commenter ci plateau télévision yi loo xam ni gëmuñu ko sax ñu man xàmmewuma sax tukkulóor baag joolaa baag wolof beeg xàmmewuma yooyu mais dama ni yéen ñëpp xam ngeen ni man je ne peux pas tolérer un Barthélemy Diaz dama ci rus sax papaam sax laa ci xaw a rus parce que papaam il est c'est un homme sérieux pourtant papaam a ngi ci président Macky Sall am fa bureau xanaa loolu rek waral na ko rus. moom il a été violent avec Macky mais il a été violent avec son père bi nekkee pale ba donc il faut nit ñi nañuy def analyse yu yu yu sen bañ a nekk na feq toog ci télévision yi en tant que euh, chroniqueur xam ni lii dëgg la wala lii Gaston wax mooy dëgg ñu ngi jéem a dévier di jéem a euh, je ne sais même pas nu ko mën a tuddee naa feq daal baaxul. man nag rëccu wu ma regretté dara ci li ma wax je ne dara xanaa rectifier li propos. yi ñu détourné yi ay Khalifa Sall yooyu ñoom Khalifa Sall en tant que ancien ministre xam luy république génne ci école parti socialiste taxaw ñu wër taabal di wax keroog maa ngi gis sax Habib Sy moom it nga xam ne ñoom ñëpp ku leen xam Ablaye Wade taxoon ñu xam leen ñu nekk yi wax je supporte Barth dégg nga maam Aly Ngouille Ndiaye maa ko bàyyi ak samay rakk ak ay ay affaire u xale affaire euh, révolté de la nature il faut qu'il revienne sur terre il faut qu'ils reviennent sur terre ces gars-là Sénégal ñëpp ko bokk nan wuti CV wala ñu liggéey mais politique du liggéey mënu noonu nax ni ñuy yemale politique jar leen ñu sacrifier ay nit ñoom ñoo xam ñoom ñoo xam nu ñuy rey ñoom leen fii accuser ay rey ak ñoom la du ñoom c'est pas mon problème ñun xamul nu ñuy rey merci.